wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu waa Pikini production di leen ziar di leen bëggee di nuyu waa Sénégal yëpp ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci bitim réew di leen fay bu baax di kontaan ci yéen ci dalal gi ñu leen di dalalaat fii ci suñu daara ju mag ji di daara alquran xale yu bëri di fi génnee ci mokkal alquran waaw wàllum jaaro gi de tendance la boo xamante ni dafa xew ci réew mi foo tourné ñu ngi naan Cheikh Ibrahima Diagne borom jaara xaqiqa bi. macha allah ñu jëflante ci ñu bare jaaro gi nag bi ma ko fi indee Sénégal ak léegi daanaka mat na ñaari at mais jamono ji nag day doog am tàkk maanaam day doog am siiw nekk tendance boo xamante ni ñëpp a ngi koy coow ci réew mi comme ni ma koy waxee jaaro bi nag li ko tax a jóg mooy dañu gis ni bëri na ñu nekk ci àdduna bi wala ñu nekk Sénégal bëgg jëfandikoo ñaan mais yàlla daf leen natoo mënuñu sangu wala mënuñu takk ñu indi gàllaaj boo xamante ni dañ koy jël def ko ci biir jaaro bi yow léegi gàllaaj bi soo ko takkee jaaro bi soo ko takkee bépp gàllaaj bu nit daan takk rek yow am nga ko mais aussi gàllaaj bi jaaro bi soo ko takkee lépp lu nit daan sangu pour am ko yow am nga ko jaaro bi yi ko tax a jóg dafa bare jaaro bi per bi ñu ngi koy jëndee ji ba Inde am boo xam ne ñu ngi koy jëndee Pakistan lañ koy jëndee lépp nag ngir satisfaire nit ñi ci yaakaar bi ñu am ci ñun ci wàllu ñaan jaaro bi yi ko tax a jóg dafa bare maanaam bi ci gën a mag mooy jaaro bi li ko tax a jóg mooy wàllu ubbeeku ubbeeku total maanaam foo nekk yaay raw say morom jaaro bi dafa ànd ak tamit gàllaaj mooy maanaam amul kenn ku la mën a liggéey ba jàpp la xam nga mënoo toog ni kenn duma liggéey mën nañ laa liggéey mais liggéey la pa te bañ laa jàpp moo jaxe maanaam jaaro bi dañuy fexe ba képp ku la liggéey du la jàpp benn bi aussi mooy jaaro bi day tax fépp foo nekk da ngay am bayre maanaam secret yontu yàlla yuusufa ba nekkoon ci yontu yàlla yuusufa nga xamante ni euh, falamma ra'aynahu akbarnahu euh, nga xamante ni jigéen ñi dañ ko daan gis sax ba di dagg seen loxo yi secret boobu lañ ca def mooy képp ku la gis dalay bëgg muy góor muy jigéen soo ko takkee waaw benn bi aussi tamit dañ ci def wàllu yokkute boobooy jaaro bi nga xamante ni mooy bu mag bi nga xamante ni boobu per bi mi nga jógee Pakistan mais tamit gàllaaj bi dañ koy bind dugal ko ci suufu per nga xamante ni da ubbi carrément jaaro bi soo ko takkee sa loxo càmmooñ bërëb boo nekk bu bu fa yëngu-yëngu amee jël ko rek dugal ko sa loxo càmmooñ sa ndeyjoor taxaw dara du xew même bu fekkoon da nekk ci service boo xam ne dafa am yëngu-yëngu ñu am ñu ñuy wàññi yow jaara bi boo ko jëlee def ko sa loxo ndeyjoor kenn du la wàññi bu fa xeex amee dëkk ba bu fa xeex amee yëngu am fa boo ko tekkee sa loxo ndeyjoor dara du la dal garanti boobu moo nekk ci jaaro bi waaw beneen bi aussi sécurité ba nekkoon ca jaaro yonent yàlla Suleymaan lan ca defoon wa bi saaxibi xaataami bi lambiya comme nañ ko jàngee ca abada bu ruux ak jaaro ba nga xamante ni secret yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam secret ba nekkoon ca jaarom ba ñu def ko ca muy bu njëkk bi mooy wàllu ubbeeku total deuxième partie bi muy wàllu beneen jaaro bi boobu dafa jëm ci wàllu bayre ak bëri na ñoo xamante ni li ñu jooy mooy lépp lu ñu yor mu dem maanaam cat moo leen jàpp ba lépp lu yor mu dem jaaro bi boo ko jëndee per bi jóge Pakistan lañ ciy def ak gàllaaj Manam Bobu boo ci defee lépp lo dina dina sa loxo te dina ko benn bi aussi tamit moy dalay manam walu la comme commerçant yu comme ñi nekk bitim réew ñi ci ëpp le la leen di faral di bi aussi mis mom dafa jëm ci walu commerçant, cassette moy daf lay la mën a moy 3 mooy bi légui nak am bo boo spécial yooyu mën utiliser mais dafa am spécial bo maanaam jigéen joo xamante ne dafa am problème mu borom kër su jëlee jaaro bi takk ko bala moo am deux semaines yàlla may ko borom kër gu baax bu dee góor la tamit kazaalika am na bëri na kilifa yoo xamante ne ñu ngi leen topp bëgg leen jaaro boobu la ñu yore mooy jaaro bi day def ci yow bayre ba mbooloo moo dem ñu jox la sa wàcc way bëgg la fonk la secret boobu dafa nekk ci jaaro bi ñu def ko ci secret yontu yàlla yuusufa ca taar ba mu amoon ak bayre ga mii yunt yàlla Suleymaan ak nguuram nga ak yunt yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga bu daan ñëw ci mbooloo nga xamante ni day nekk benn jëmm joo xamante ni kenn melul ni moom jaara bi soo ko tekkee noonu la lay def kon muy jaara boo xamante ni daal dañ toog ba ci yàgg ndax bi bokk naa ci ñëpp dañ ko daan jënd rek ngir def ko taar-taarlu mais bokk naa ci kilifa yi nga xamante ni ñoo ko njëkk dal def ko gàllaaj waaw bii ci benn yooyu la ci la bokk ci benn yi nga xamante ni da lay ubbi jox la wërsëg jox la bayre loo yor mu sax tax tak ci say loxo mais en même temps kenn du la mën liggéey ku la liggéey maanaam du jàpp muy dem loo xamante daal tendance la boo xamanteni ni ñëpp ngi koy dégg ñu koy ceew ci réew mi naan Cheikh Ibrahima Diagne mooy borom jaaru xaqiiqa bi nangam nangam njëkkuma ko fi indi nag mais dama bokk ci ñi ko njëkk def gàllaaj parce que léegi tey ji jaaru bi loo sol mu dem ak moom waaw tey tey ji Ablaye Wade président Ablaye Wade bi muy campagne en 2000 di jël réew mi kaka jox jaaro ba sama kilifa la jaaro bi mu takkoon bu ngeen demee ngeen xoolaat vidéo yi ka jox jaara bo takkon sama kilifa la kon ñun xam nañ bu baax amna na kilifa yoo ci rew mi jëflante ñak ñom ay ministre yo xamanteni te ne jëflante ñoom ñoom ci walu jaara bi ak ay kilifa yu bëre ci walu jaara bi yalla may ñu ci ndam kon ñu ci sante yalla bu baax tabarakallahu di certifier di contane bu baax nak ci encouragement bi nga xamanteni am nañ ko ci nit ñi ben parce que barki démb rek amna ben kilifa ci man pour wut ci daara bi mune ma diw tuddu turam muy ko ñepp xam ci rew mi ma yow parce que nee na li nga ko waxoon ci jaaro yi ba mu ko takkee gis na ko ma ne ko loolu nag sant yàlla yàlla muy defar nit sutura ba lépp loo jëflanteeg nit ki mu am si ay résultat te damay wax ni ñaan à chaque fois ma wax ko ma ñaan képp ku nekk ci réew mi Sénégal nga bëgg am tekki bëgg raw say moroom nga ni doo jëfandikoo ñaan da ngay tardé da ngay tardé olof nee na suuf su sutantee dañ ko jal nga nekk say moroom nga am lu ñu amul raw leen ñu lay yaakaar te ñoom yaakaaruñu leen ko ñaan moo leen ñaar mooy def loolu te ñaan mooy fexe ba dox loo xamante ni téeméeri at nga ko war a liggéey nga am ñaan ci benn bis wala benn semaine benn weer nga am lépp bëri na ñoo xamante ni dañuy am jafe-jafe yoo xamante ni ak bëgg xëccoo lu rëy ay marché ñooñu dañ leen di dugal xalwa ñooñu moom xalwa lañ leen di dugal pour yàlla may leen ci ndam ndax wàllu xalwa moom du caaxaan waaw loolu moom wàllu ubbeeku ku bëgg xëccoo dara lu rëy ay ministre wala ay poste yu mag wala fa nekk am yëngu-yëngu wala nga am jafe-jafe am looy yóotu loolu moom xel walay laaj mais jaaro bi nag effectivement dañ ko liggéey mu nekk loo xamante ni lépp lu nit daan sangu yow boo ko takkee am nga ko jafe-jafe léegi nag am na ñoo xamante ni nag tamit bala ñu leen di bindal jaaro bi dañuy xool defal leen listixaar maanaam li olof yi naan seetal leen ba xam ñii lan mooy seen problème ñu xam tamit ban façon jaaro lañ leen war a jox am na ñoo xamante ne nag bala nga leen di jox jaare bi foog nga sanga leen ba pare mooy ndax dañu am cangaay boo xamante ni lépp lu nekk ci nit da koy dindi waaw huit jours la koy sangoo bu ko sangoo huit jours ah non bokkut ak neuf jours bi ba tey cangaay neuf jours bi moom joxe woon naa ko ci télé bi la fois passée baaxe naa ko mbokk yi mais huit jours bi mooy boo xamante ni lépp lu nekkoon ci yow da koy dindi carrément waaw mooy huit jours bu neuf jours bi dinaa ci ñëw mooy huit jours bi mooy boobu nit dafay am ay jafe-jafe comme li ñu mel na li si ëpp nag ñu nekk bitim réew laa koy faral di def mooy dañuy liggéey du ñu am lu ñu dajale dañuy nekk ci ay jafe-jafe wala Sénégal fii sax mais waa bitim réew la si ëpp li may jëflante ñoom ci wàllu huit jours bi maanaam boo ko sangoo lépp lu nekkoon ci wàllu jafe-jafe wàllu naan sama affaire dafa dëgër man lu ma yóotu lu ma yaakaar day tas huit jours boo ko sangoowee lépp loo yaakaar incha allahu ci kàttanu suñu borom di ci jot waaw ñu bëri nag dañuy wax ni maanaam. naan eh, lan moo tax man képp ku may jëflanteel day am résultat waaw ndax man dafa am yeneen sëriñ yu may jàppale déedéet yàllaa ma defal sutura ba képp koo xamante ni maa ngi jëflante yow ngay am ndam wallahi fenu ma de léegi nii avant ngeen di ñëw di tourné man kii ma doon woo dafa doon wax ni ma sant naa yàlla bu baax ndax la la ma doon yóotu dafa doon am xëccoo bu mu doon def ci benn poste ci banque mu ni ma la ma doon yóotu yàlla dogal na jot naa ci léegi léegi nii avant ngeen di ñëw di tourné ak man kon loolu nag ay sant yàlla la yoo xamante ni yàlla moo lay defal sutura boobu càngaay huit jours boobu na nag soo ko sangoo lépp lu nekkoon ci ci wàllu jafe-jafe dañ na dañ ndax nit ñi fi mu bët làmmin liggéey daf leen sonal parce que dañ nekk ci réew moo xamante ni as boo ko amee rek wax yooyu ñi ci nit ñi di wax rek mën na laa jàpp bëri na nit ñoo xamante ni seen affaire dafa bloqué làmmin moo ko bloqué ñii bët huit jours boobu noonu nag boo ko sangoo lépp luy jafe-jafe dañ na ci yow. càngaay neuf jours bi nag boobu moom. fatxu la ubbeeku carrément raw say morom gis nga ca ngaay neuf jours bi soo koy sangu maanaam quatre la ak cinq quatre jours yi mooy dindi li nekkoon ci yow raxas ko ba mu set wecc cinq jours yi nag moo lay ubbi moo lay ubbi carrément léegi nag maanaam gis nga boo koy sangoo da ngay jël lu kawe xeer la wala lu kawe nga toog ci nga nga taxaw ci sangoo ko gis nga noonu nga yéegee ci lu kawe noonu boo ko sangoo ba neuf jours yi jeex képp koo maaseel képp koo bokkal noonu nga koy rawee yaay nekk jantu seen famille maanaam boo ko xasee ba sangu ba toog da ngay yëg ci lu kaw nga sangoo ko boo ko sangoo pare nag nga ni bàyyi naa leen ci suuf loolu ngay wax da nga da nga naan da jël sa loxo bii yëkkati ko ci kaw nga ni sama gaay bàyyi naa leen ci suuf képp koy àndal képp koo maaseel famille boo bokk bàyyi nga ko ci suuf raw nga ko ni jant di kawee noonu ngay dañ ko liggéey tamit secret bi ci wàllu jant maanaam bu ma koy bind damay dama koy bind ci naaj bu tànk léegi ci jant bi nag ci secret boobu ci jant bi mooy tax tey ji yow nga raw say maas comme jant bi muy kawe moom mooy cangaayu neuf jours neuf jours bi quatre yi muy raxas li nekkoon ci yow cinq yi moo lay uppi bu dee sept jours bi la nag boobu la plupart jigéen ñi ñoo koy faral di jëfandikoo laa koy faral di bindal pour jigéen ñi la maanaam pour jigéen boo xamante ni dafa am ay problème problème ak borom këram wala mu am jafe-jafe pour am borom kër ndax bëri na ñoo xamante ni seen problème dëgg-dëgg mooy am borom kër. secret boobu tamit am na ci jaaro bi jaaro bi am na boo xamante ni boo ko takkee bala moo mat deux mois mois nga am borom kër gis ku baax ku la bëgg nag ku bon mënu bëgg borom teraanga ko baax mooy ñëw bëgg la waaw. am na ñoo xam se cangaay sept jours ba nag dañ ko def ngir koo xamante ni jigéen joo xamante ni dafay am problème ak borom këram wala dafa am problème ma ji góor nag góor boo xam ne dafa am problème pour téye soxnaam tamit. dañ ko koy jox pour mu mu sangoo ko bu ko sangoowee jafe-jafe dina am jafe-jafe bu mu amoon ci diggante borom këram wala ay doomam wala jabaram dina dañ bu dee jigéen la tamit kazaalik bu ko sangoowee maanaam jafe bu mu am ak borom këram wala jafe-jafe pour am borom kër dina ko am incha allahu taala waaw su ko defee tamit dañuy profité waale ndax dafa nekk loo xamante ni Sénégal ni ñuy takkee sëy ci jàkka ji noonu lañ koy tasee ca tribunal te bëri na ñoo xamante ne ñi ngi tas te neexu leen te des fois nga dégg ñu naan sëriñ jigéen ñi dañoo bëgg sëriñ jigéen ñi dañoo bëgg tekki bëgg nañ seen borom kër bëgg nañ téye seen foyer mais nag képp ko ci bëgg jamono jii ak naan sama borom kër dafay xool leneen ak loolu jëfandikool ñaan boo jëfandikoo am na ñaan yoo xamante ni boo ko jëfandikoo ëpp na sax di wax mais da ngay téye sa borom kër nii waaw gis nga fas secret boobu tamit dañ koy liggéey. ba nga xamanteni fas bo téewee ci ceq moy ci karaw yow ci kanamam ni nga koy momé yow non ngay momé sa borom kër non lañ koy liggéeyee muy see kër yoo xamante ni tabaarakallaahu yàgg nañ ci ak wa réew mi diko baxé wa réew mi ndax lool rek moo ñu tax a lépp lu bon mom duñ koy liggéey mais képp ko am jafé jafe dinañ la xolal say mbir xol ba xam lan mo koy saafara ñu jox lako lu melni tamit tayji garab yi nga xamanteni tamit dañ koy faral di joxé ci goor yi nga xamanteni dañuy gaaw a seen bop ci walu sëy wala ñu am problème mu yooyu tamit yàgg nañ ko fee joxe la fois passée bi ngeen fi ñëwee joxe woon naa ko waaw joxe woon naa ko muy muy garab yoo xamante ni boo ko naanee yàlla doy dogal jafe-jafe boobu day dañ ci yow carrément. maanaam bëri na Sénégal yoo xamante ni ñu ngi jooy maanaam kër daf leen sonal secret boobu dama leen koy may dama leen koy baaxee may leen ko da ngay ci koo xamante ni mën naa bind wala yow bu fekkee mën na bind nga bind li ilaafi Qurayshin da ngay bind Fatiha bind li ilaafi Qurayshin ñetti yoon. li ilaa fi Quraysh bu njëkk bi danga koy maas beneen bi da koy tomb beneen bi du am tomb du am maas nga jël ko def ko sa kalpe boo ko defee sa kalpe lépp loo am dina taxaw dina sax ci sa kalpe loolu man maa ko baaxee képp ku ñuy déglu képp ku ñuy seetaan te yàgg ñoo topp secret boobu maa la ko baax dangay dem ci koo xamante ni mën naa bind mu bindal li ilaa fi Quraysh ñetti yoon bu njëkk bi da koy tomb maas ko beneen bi da koy tomb kese du ko maas beneen bi nag beneen li ilaay xoreesim bi du am tomb du am maas su ko jëlee mu def ko ci kalpeem lépp lu mu am dina sax ci loxoom waaw lu mel ne tamit xale yi nga xam ne dañuy jàng euh, tabaarakallahu dañ leen di defal ay kiis pour yàlla xu ubbi seen bopp yi ak tey ji dañ nekk jamono boo xamante ne aar sa njaboot surtout rek ki ma doon jokkal euh, démb ci wàllu Europe loolu ma doon wax maanaam pour ti ñaq sa njaboot téye leen ndax yar dafa jafe léegi moo tax képp ku bàyyi sa njaboot ëllëg dina réccu waaw ndax réew mi li yàqe bëri na lii kafaate bëri na mais képp koo xam ne bëgg nga téye sa njaboot faaw nga wutal leen ñaan ñaan goo xam ne dina la ñàkk leen téye leen ba lépp loo bëgg ci ñoom yàlla def ko ci. li nga xamante ne maa ngi leen koy wax mooy dañuy faral di jooy naan waa léegi internet bi wóolatuñ benn sëriñ dëgg la ñoo yey parce que tamit léegi ñii naxaate dafa bare waaw ñii naxaate man damay wax ni. képp ku may jëflanteel mën naa foto sama carte d'identité kanam ak gannaaw lépp sama passeport ma photo ko yónnee la ko amul man aw ma sens interdit ci Sénégal ak bitim réew sëriñ yoo mën a xàmmee gis nga sëriñ koo ci gis xoolal jëwam rek koo xool jëwam di nga xam ni kii jaamukatu yàlla la waaw wala déet ndax nit bu la dàqul jaamu yàlla mënu la ñaanal mu nangu il faut mu tane la ci yàlla mën la ñaanal mu nangu mais koo xamante ni tanewu la ci jaamu yàlla gënul la ragal yàlla lekk li muy lekk daganul kon kooku mënu la ñaanal mu nangu dañu waxante dëgg kon tabaarakallaahu loolu la wanoon documentaire bi di leen gërëm bu baax di leen sant jamono ji nag yàlla dogal na tukkiwuñu ci voyage la ñu jóge jamono ji ñu ngi ci réew mi ñu ngi ci Sénégal képp ku bëgg a jokkoo ñun rek numéro yooyu noonu soo si jokkoo ak ñun dinañ la wax fan la ñu nekk tabaarakallaahu instant bii nag jamono ji ñu Kër Massar rond point guy gi wala bu ma ne rond point guy daara ji fii ma nekk soriantowul ñël des fois ma recevoir nit ñi ci daara des fois maa nga sama kër rond point guy gi fii ci Kër Massar des fois nag ñu génn nekk bitim réew mais ku jokkook ñun rek fu ñu mën a nekk ndax dañoo liggéey suñu portal numéro bi foo mën a nekk fu ñu mën a nekk rek boo ñu woowee du ñu jot incha allah ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëm waa Pikine di leen ñaanal yàlla yàlla def leen ngeen yokk bu baax ndax kontaan nañu ci seen liggéey ni mu rafetee wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu